kenn ku nekk di wax ni jëkkëram mel loolu nag luñ ciy déggee mooy ni góor ñi war nañoo góorgóorlu jikko yu ñu wax luy ñaaw la te jigéen wax ko nañ ko moytu waaye jikko yu ñu wax ni yu baax la nañ ko jéem a melo ñeenteelu jigéen ji dafa wax ni zawji ka layli tihaama la xarra wala qurra wala maxaafata saama zawji ka layli tihaama la xarra wala qurra wala maxaafata saama ndaw si moom tagg na jëkkëram wax na ci moom jikko ju rafet melokaanal na ko melokaan bu rafet kon nag na jigéen ñi mel noonu suñu gisee lu rafet nanu ko wax comme ni ñuy waxee lu ñaaw ndaw si dafa ni sama borom kër daal dafa mel ni guddi tihaama tihaama dëkk na ci hijaab bi boo xam ni climat bi dafa dal tàngul lool seddul lool mbooyewul bay lor nit ngelawul bay kuseeral nit arab yi bëggoon nañu dëkk boobu lool di fa dem di fa campe ndaw si daal nee na man sama boroom kër dafa mel ni layli tihaama sama boroom kër daal dëkk boobu ñuy wax tihaama nga xam ni dafa dal nit ñi dal ngelaw li dal lekk bi dal naan bi dal noonee la sama borom kër mel mu ne laylu tihaama la xarra wala qurra laylu tihaama suñ ko waxee mooy amul tàngoor wuy dàq nit amul tàngoor wuy sonal nit waaye wala qurra amul sedd it boo xam ni dana foñloo nit ba mu daw dugg néegam sàngoo mbàjjam kon li mu bëgg wax mooy borom këram ku dal la borom këram ku teey la waaye borom këram ku baax la góor la goo xam ni dafa am dal dafa am sago dafa baax dafa mën a déglu jigéen du gëdd du jànni du xas du wax lu ñaaw kon melokaan na na ko comme melokaanu tihaama kon góor gi góor gu baax la góor gu mën a yoro jabar la góor guy déglu jabar la góor guy wax ak moom la góor gi jikkoom ñaawul jikkoom sewut yorul melokaan bu bon loolu moo tax mu ne laa xarra wala qurra tàngul jër waaye seddul lool li ci gën a neex nag mu ne wala maxaafata sa ama mu ne jëkkëram daal doo ragal sax ci moom ab yokkat bu koo wax dara di tiit bu koo ñaan dara bi ragal nee na déedéet jëkkëram daal góor gu mën jigéen la koo xam ne daal mën nga ni moo gën ci góor ñi kon góor googu na ko góor ñi roy baax ci soxna yi bëgg leen jàpp leen yërëm leen dimbale leen di leen déglu di wax ak ñoom di leen wéttalikoo loolu melokaan bu baax na ci góor kon nag wa fi daalika falyatanafasil mutanafisuun jëf ju baax ji kenn ku nekk ci ñun na ko njëkkante na ko roy na fexe ba jabaram di ko namm ay doomam di ko namm waa këram di ko gelu na nekk góor goo xam ne bu tukkee waa këram feebar na nekk góor goo xam ne bu fi nekkee waa këram wér ndax jigéen dañu koy yàq doom dañu koy yàq lan mooy yàq jigéen mooy bu la gisee lu mu bëgg def ko lu mu soxla am ko bu la gisul jaaxle loolu moom mooy melokaanu ñeenteelu jigéen bi li mu wax ci jëkkëram aa kon nag góor gu baax a ngi nii yàlla nañu yàlla may melokaan yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi